alquran jàngal na ma alquran xamal na ma alquran jàngal na ma ne wa man yattaqi llaha yajcal lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib alquran xamal na ma ne képp ku ragal yàlla jafe-jafe boo am yàlla dina la ci génne te yàlla dina la wërsëgal foo ko foogewul woon alquran xamal na ma ne haza sartun lii sart la maanaa wa man yattaqillaa képp ko ragal yàlla loolu sart la képp ku def nangam waaw kon ku def nangam bi ban nangam lay am yàlla mu ne yaj'al lahu maxraj képp ku ragal yàlla ñu ne ha lan lañ lay fay yàlla mu ne jafe-jafe boo am ma génne la ci problème boo am ma génne la ci soxla boo am ma fajal la ko jafe-jafe boo am man yàlla ma dindil la ko allahu akbar haza waadun lii dig la yàlla dafa ne boo defee nangam ma def nangam kon yow li tax amagoo nangam bii mooy da deful nangam képp ku ragal yàlla sart la soo ragalee yàlla yàlla nee na ma génne la ci xat-xat yi génne la ci jafe-jafe haza waadun lii dig la ko dige te inna waadallahi xaq yàlla lumu mu dëgg la waaw yow yàlla dig lan la mu ne wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib dinaa ko wërsëgal fu mu ko fagawul woon mu ne haasihi mukaafa lii nag mooy fay bi fay gu rëy ngoog mbokk jullit kon sunuy mbir sunuy jafe-jafe sunuy problème su réglewul rek kon nu ndax buur bu tol ne allahu subhaanahu wa taala ne soo defee nangam ma def nangam soo ragalee yàlla ma génne la ci xat-xat yi ma génne la ci jafe-jafe yi kon mbokk yi lan moo tax ñun mënuñoo génn ci xat-xat yi lu tax mënuñoo génn ci jafe-jafe yi kon ndekke mbir mi nun la waa lan mooy at taqwa lan mooy ragal yàlla mooy an tajcala baynaka wa bayna maa xarama allahu xijaaban wa xaajizan ragal yàlla mooy nga def nga doxale sa digganteeg li la yàlla tere li araam kiiraay défense barrage fexeel yow jullit ba sa digganteeg li yàlla araamal am barrage bu fi dox am kiiraay bu fi dox am ñag bu fi dox nga xam ne balaa ngay xëtt di dem ci lu araam li ñag bi baare la miir bi téye la kiiraay googu téye la moo gën yow saa yoo jógee rek nga xëtt dem ci lu yàlla araamal imaam ali radiyallahu anhu wa ardaahu ibnu abi talib moom biñ ko laajee at taqwa lan mooy ragal yàlla qaala hiya alxawfu min aljalil wal amalu bittanzil wal qanaatu bilqalil wal isticdaadu li yowmi rahil imaam ali ne ragal yàlla mooy nga ragal sa borom alxawfu min aljalil nga ragal yàlla mi la sàkk mi la bind mi la amal nga mooy ta ndiku ko nga mooy ndiku sa boroom mila la mila mi la amal wal amalu bi tanzil nga góorgóorlu jëfe téere bi yàlla wàcce ci yow te mooy alquraanul karim bii di la jàngal alquraanul karim bii di la xamal la ca yàlla wax nga jëfe ci ay ndigal la mu ca tere di ay ndigal nga baax ñi ne ko ñetteel bi lan la mu ne wal atu bil qalil waay waay waay lu la yàlla may na la doy wallahi bii tamit problème la bii tamit ci sunuy jafe-jafe la yàlla di may nit ñi te duñu doylu nit su bëggee am nekk borom am alal nekk borom alal nekk borom koom lu ko yàlla may na ko doy al qanaatu bil qalil doylul li la yàlla may takun agna nas nga nekk ki ëpp alal ci nit ñi ñu ne ko ñeenteel mu ne wal istidaadu li yowmi rahil mooy ngay waajal sa ngay waajal alaxira xam ne léeg nga dee dajeeg sa boroom subhaanahu wa taala seydina aliyin radiyallahu anhu wa ardah bañ ko laajee ragal yàlla moom nii ko firee qaala abu darda radiyallahu anhu tamaamu taqwa an yattaqiya an yattaqiya allahu al abd hatta yattaqihi min misqaala zarra abu zar radiallahu anhu moom biñ ko laajee ragal yàlla mu ne matuk ragal yàlla mooy jaam bi wattu yàlla ba lu tol ne pépp suuf sax jaam bi dina ko wattu wa hatta yatruku baadu ma yara annahu xalaal xasya an yakuna xaraman yakunu xijaaban baynahu wa bayna alxaram nee na léeg doomu aadama bi dana dem sax ba bàyyi lu daganoon ci moom ndax ragal yàlla te mu leer ko ne lii dagan na waaye mu mooy tëndik ko mu daw ko sax ndax rek bañ a dugg ci lu araam loolu nekk kiiraayam digganteem ak ragal yàlla laa ilaha illallah mbokk jullit yi jaam bi toll ci yàlla dem bay bàyyi araam ngir am tiyaaba ngir subhaanahu wa taala bëgg ko ngir mu bañ a am bakkaar lool dong moo ci dugal ki lan ndax lan ndax am lan am ragal yàlla tabaraka wa taala dong moo tax waa ji bàyyi mbir yi nga xam ne daganoon na ci moom anas ibnu malik radiallahu anhu qaala balagani anna rajulan min baadil fuqaha kataba ila ibnu zeyd radiallahu anhuma yaqul ala inna li ahli taqwa alamat yurafuuna biha anas ibnu malik nee na radiallahu anhu nee man day jot na xabaar ñëw na ci man yegsi na ne kenn ci boroom xam-xam yi dafa bind ci kii ñu naan ibnu zubayr ibnu zubayr dafa bind ci moom jëme jëme ci moom benn lettre radiallahu anha anhuma nee na mu ne ko ala inna li ahli taqwa alaamaat boroom xam-xam yi day nee nañu ñi am ragal yàlla dafa am ay xàmmekaay yuñ leen di xàmmee way ragal yàlla yi dañoo am xàmmekaay wa yaarifuunaha min anfusihim ñoom sax seen bopp xàmmekaay yi day dem ba ñu gis ko ci seen bopp ñu ne ko yooyu yan la mu ne man radiya bi qada képp koo xam ne lu yàlla dogal ci yow nangu nga ko yow ragal nga yàlla man radiya bil qada wa sabara alal bala yàlla teg la jafe-jafe ay nattu nga muñ ko yow am nga màndarga ragal yàlla soo nangoo dogal muñ balaa yi wa shakara ala nicma yàlla bu la defalee xéewal nga sant allahu akbar ñetta ngoog ñeenteel wa sadaqa fi lisaani làmmiñam dëggu sooy wax mu wax dëgg wa wafa bil waadi wal ahdi mu respecté rendez-vous ak dik lu mu wax def ko ku mu joxal rendez-vous respecté ko wa talaali ahkaamil quraan mu jëfe attey alquraan yi allahu akbar mbokk yi mandarga yaa ngoog mandarga yi way ragal yàlla yi nangu ndogal muñ jafe-jafe yeeg balaa sant xéewal yi làmmiñ gu dëggu respecté rendez ak dig jëfe téere yàlla allahu akbar anas nee lii ku ko def bokk ci way ragal yàlla yi bokk ci ñooñu yàlla tuddee ahlu taqwa yàlla nañ ko yàlla may yàlla nañ yàlla may ñu boole ci ñi nga xam ne alquran moo leen jàngal ne wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxraj wa yarzuquhu min haysu laa yaxtasib asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu